faral moy dañ ñëwon tay fi euh, préfecture and ak wa croix rouge nga xamantene ci sen euh, kilifa di euh, monsieur basirou Seck la andal ak Mamadou Diop nga xamantene ñoo ñoo jité croix rouge bi fi ci département bi dañ ñëwon nak pour won pour xamal préfet liggéey bo xamantene ñu ngi koy def ci walu xex mbass mi ci bir réew mi et lolu nak mo taxone ñu ñëwon fi li ci top nak moy moy yiñ ci tegg moy que dañ gis nañ ni croix rouge seen liggéey dafa am solo trop ci walu population yi parce que ñom tam ñoy jappalé kilifa yi ci walu xex mi parce que ñom fune lañuy dem te fune lañuy la ñuy nekk loolu moo ñu japp ni ñun suñu intervention ci ñooñu li suñ ko défé ci ñooñu yaakaar na né dina am impact bu gëna reuy ci ci ci ci xex bo boo ci lañu ñu nekk. waaw jàppale ki euh li la rek euh, dañ jël ben ambulance. jox leen ko pour que ñu mën a taxawu nit ñi ndax te couvre-feu bi xam nga diggante vingt heures ba euh, ba six heures du matin lu bëri day xew boo ko defee population yi ku ci am jafe-jafe war nga mën a woote waa Croix-Rouge ñoom mën nañ mën a ñëw jàppale la si wàllu évacuation sanitaire mbag yu demee noonu waaye tamit euh, jox nañ leen yeneen benn mini camion ak benn camionnette yoo xamante ne nañ leen mën a dimbale si wàllu euh, tasaare ndimbal yoo xamante ne si wàllu ceeb ñu war ko yóbbu si ay localité yaakaar naa bu ñu amee mini camion na leen dimbale waaye tamit camion na leen aider si sensibilisation yoo xamante ne war nañ ko def si biir département bi ñu war a wër fu ne donc loolu mooy euh, ndimbal bi ak jàppale bi waaw donc yokk nañ ci aussi mille masques yoo xamante ne euh, dëgg dëgg euh, xam nga tamit comme ñoom dañuy dox di sensibiliser dina rafet koo xam ne wax nañ ak yow te yoroo masque bu ñu la joxee masque yaakaar naa dina tax ba li ñuy wax tamit lu ñuy woote tamit dina nekk dëgg si ñoom donc jox nañ leen mille masques pour ñu mën a dem mais loolu te commencement la rek waaye arrêté wuñu ñu ngi siy liggéey boobu di ànd ak ñoom ba saa fu mu yem rek. waaw famille judiciaire bi comme ci laa bokk tamit ñoom tamit euh, prévoir nañ 1000 masques pour ñoom mais si euh, Croix-Rouge lañ koy jaarale pour ñu tasaare ko si tribunaux yi. yu nekk si département bi ak euh, si commissariat yi ak brigade de gendarmerie ak compagnie yi nekk fii nga xamante ne ñooñu suñuy partenaire lañu moo tax mënuñu leen fàtte si mbir mi te ñoo xamante ne la nit ñi dañ leen di fréquenter te ñu nekk au devant euh, loolu moo tax ñoom it aussi boole nañ leen si suñu suñu suñu suñu suñu suñu jàppale.